guide religieux toujours dañuy rappeler ay principe parce que ñu nekkoon ci làmb ji kon dañuy rappeler ay principe euh, moo tax ma wax loolu xam nga li ma la wax nii euh, mën nga jàpp ne lu woyof la lu ci baax baax na lu ci jubul jubul mais woyoful de parce que ñoom ñi xëccoo politique ñoom xamatuñ loolu ñoom tey par exemple lu ñu xam mooy yow sama noon nga mënumaa gis lu baax ci yow alors que man en tant que imam mën naa gis lu baax ci sa noon yow en tant que adversaire politique parce que am naa recul bi moo tax ñun ñuy wax lu mel noonu mais beneen bi aussi mooy euh, discours bi moom am na ci ay parti yoo xam ni yu jar a critiquer la yu doy waar euh, te loolu jar na critiquer parce que euh, li nga xam ni baax na ci discours am daanaka wax ne baax na amul boobu solo mais surtout li nga xam ni mën na indi jafe-jafe pour un premier ministre jar na bàyyi xel je pense que benn ci ay problème ci discours boobu mooy que je crois que le premier ministre génn na prérogative premier ministre ci wax ci yenn yi bon li lay wan ne am na difficulté mooy da ngay gis ne même camp boobu lu may lire ci presse bi dañuy wax ne no fii c'est le président du PASTEF moo wax pas le premier ministre bi fi Mélenchon ñëwee man leen bi attendez loolu tamit il faut ngeen clarifier ko mënuloo euh, premier ministre bi su waxee dara ñu ne non fii ci politiquement la ko doon wax fii ci man il faut que ñu clarifier loolu mhm. donc euh, admettons même su fekkee ni président PASTEF moo wax que le président Pastef taxaw ci benn meeting di wax ne que le le le le le président du conseil constitutionnel. Hmm. daf maa jéem a nangam ak nangam loolu c'est inacceptable même bu fekkee ni c'est le président du Pastef rawatina koo xam ne léegi nag tu es premier ministre. Hmm. loolu benn exemple la ci. Hmm. pour un discours public comme ça euh, doy na waar. beneen bi ma ci retenir wax carrément que ton ministre de la justice au moment où ñuy wax affaire indépendance. que moom mu ngi lay yónnee vidéo c'est très bizarre di la wax kii ci seen gars yi la nga ne ko defal sa liggéey pour man moom mi ngi jéem a wane ni dafa bëgg justice mais en même temps mi ngi dugal ministre bi. Mm-hmm. parce que ministre bi amul lu muy yónnee le premier ministre s'il est vraiment indépendant il n'a pas besoin d'envoyer quoi que ce soit au premier ministre. donc loolu tamit problème la est-ce que léegi da nga naan président Pastef moo wax loolu wala premier que premier ministre nee na sama ministre yónnee na mën a ko defal sa liggéey. loolu par exemple problème la kon problème indépendance justice bi c'est pas encore réglé mhm. te ça très difficile dañ ni koy waxee nii yom yom non non yombeewul noonu déjà lam-laame bi dina bokk bokk ci conseil supérieur de la magistrature mu ngi posé waat beneen débat ah gis nga mhm. alors euh, voilà populisme koy tuddee rek man tout le temps mooy que nekk ci opposition bi wax lu neex a dégg euh, dingat li fi nekk yëpp et boo ñëwee nag nga ne affaire yi euh, yombewul noonu kon xoolal affaire appel à candidature bi léegi nii ñu ngi nommé rek de mais gisaguma appel à candidature. xam naa dafa am ay postes yu yu ñu yu ñu dencal appel à candidature bi comme. waaw mais waxuñ ko woon de ci opposition bi est-ce que defoon nañ boobu division des post en disant que nangam ah, je pense que vaar yi ma mujjee gis. fii chargé de mission lay <laughs> waaw donc dafa ma dafa mel ne ñoom am nañ ñeewental ci ñoom c'est c'est normal aussi. Mm-hmm. comme en plus ay xale lañ nekk ñu bees ñoo xam naa dañu xaw a yërëm tuuti mais. Euh, la kulli xaal ñun en tant que ay observateur euh, ku wax dara dañ lay xaar nga jëfe sa kàddu mhm. ñun aussi en tant que guide religieux dañuy bëgg wax waxeet bañ a am parce que ndeysaan suñu papa Abdoulaye Wade amul lu ñu ko fi waxul mhm. ndax wax waxeet kon est-ce que war nañ ko accepter keneen mhm. Abdoulaye Wade amul lu ñu ko fi waxul mag mu day nii wax waxeet ba ba créer benn sémantique mais di di ko ci wax lu ñaaw léegi est-ce que keneen am na droit ñëw toog tey di wax ne waxoon naa lii mais Euh, man discuté naa ci ak benn waaye mu ne non duñ ko mën a def léegi ma ne bon yooyu yëpp waxuñu ko woon est-ce que dañu waxoon dans six mois la ñuy nommé léegi kon ñi fi nekk nañ leen fi bàyyi ba dans six mois ñu def appel à candidature mm. et cetera et cetera donc yooyu ba nga koy dugal ci biir cadre euh, populisme euh, mais laissons-leur le temps de continuer à développer mais en même temps. et sur la ma eggali foofu en même temps parce que je trouve c'est très important. Mm-hmm. dama ci waxtaan ak sa benn xarit mu ne ma est-ce que waruñu leen observer. suñu leen gaawee song nii leen critiquer te amaguñu temps et ma ne ko attention il y a deux choses ki nga xam ne dafa ne woon damay def lii ñëw defu ko kooku amul temps d'observation dañ koy wan ni defoo li nga waxoon ki nga xam ne dafa ne lii su ma ñëwee danaa ko jéem a def kooku dañ koy may temps d'observation les deux choses sont différentes donc daal affaire gestion pouvoir ndekee yombul sama gars yi nekk ci pouvoir fi mu nekk nii xam nañ ko mhm. maintenant on les observe et on souhaite euh, def loo xam ni mooy gën ci euh, Sénégal. et sur la question jëm ci wàllub Israël mu nekk problème boo xamante ne aussi soulevé soulevé na ko mais également ñu mel ni ñuy teg pression le président de la République euh, son excellence Bassirou Diomaye fay sur cette question. Euh, ñan ñoo ko teg pression. premier ministre ndax mu ngi wax na wax ci li nga xamante ne moo jëm ci mbirub Israël ak Palestine. pour euh, question boobu ñu régler ko wala ñu génn ci fi nga xamante ne moom moo di euh, rompre euh, rapport yi ñu am ak Israël. bon foofu tam j'ai des difficultés ci façon discours bu mel noonu parce que man je vois pas tellement pourquoi un premier ministre va venir dire que président bi na def lii wala bu mu def lii parce que je pense que premier ministre proximité bi mu am ak président am na yoo xam ni da koy wax ak président war a nekk mbiru bàmmeelu biir warul nekk loo xam ni ci biti on a vu d'ailleurs je pense au Cheikh Omar Diagne. Mhm. qui a aussi wax naa président nangam. en tant que conseiller mais attention. attention marché bi day tas de. bàmmeelu biir dafa baax rawatina ci nguur. ci yenn question yi mais léeg-léeg wane ni jege naa diw ba di ko wax diw moo la ci yóbbu ngistal lay doon te baaxul man maa ngi fàttaliku mos naa ànd ak benn kilifa bitim réew la jóge mu ñëw fi ñu def ay. ay activités ñu war a def ñu ne ko il faut ñu dem nuyu diw ak diw mais maa ngi fàttaliku ba ñu demee nuyu benn kilifa mi ngi woon ci nguur gi temps yooyu bi ñu génnee man dama ci xaw a am gàcce tuuti lu tax ma am ci gàcce parce que li ñu toog di waxtaan ak suñu gan boobu yëpp mi ngi mi ngi koy wan ni ki fi nekk président actuellement daanaka du def dara te dégluwuma bi ñu génnee dama ne man est-ce que ñun loolu indiwuñu fa man ànduma woon kooku ak moom pour wan ko ni moom dafa jege kooku mais poste bi mu amoon lañ ko doon waxtaana lan la ñu mën a jàppalee ci colloque boobu ñu bëgg a def mais moom daanaka quatre-vingt-dix pour cent li mu wax ak ñun presque finalement ñun li mu li ñu bëggoon mu jàppale ñu ci defu ci dara defu ci dara def nañu waa après je vais faire ça bu mu defee cinq minutes ah on m'appelle defu ci dara mais par contre la ko yitteeloon jël na temps benn bennal ko wane ni président dafa dem sax ba wane ni président bi wóolul boppam ci dara lu muy def léeg-léeg dama ko naan ah non defal li nga bëgg def nag mënuma chaque fois di la wax li ngay def mais gàcce laa ci am man mi en tant que sénégalais gàcce laa ci mujj am donc te loolu li ko indi xam nga mooy lan ma loolu war ko woon wax wane ni man je suis incontournable président may na ma nopp nangam ak nangam alors que li muy wax noonu nekkul loo xam ni dafay wane grandeur u euh, chef de l'état te bu njëkk ba suñu mag ñi amoon nañ boobu valeur da nga gis tey bëkk néegu sëriñ yi wala suñu mag ñi doon ànd ay ati at lu nekk di xew seen diggante te ñu koy yóbbaale seen bàmmeel Euh, tey ji par exemple ku mel ne Tanor Dieng je donne juste un exemple ah mën nañu ko critiquer ci yeneen euh, position politique mais Tanor Dieng am na lu mu yóbbaale ci bàmmeelam loo xam ne su ko waxoon ci Sénégal xëy na guerre tàkk fi wala ay nit reyante fi mais auteur de république xam nga nu mu tëddee day doy waar famille rek laa la wax famille rek laa la wax am na loo xam ne boo ko fa waxee sa mbokk tas quartier noonu kon nag niveau de responsabilité boobu gis naa xaw na manqué ñi fi nekk xëy na li ñuy doog a bees la. Mm-hmm. doog a ñëw ci nguur gi taxawaay wi taxawaay wi.